Euh, campagne bi fan la toll. ndax xam nga moom rek moo ciy jigéen tuwaarkaal mhm. la ñu war koo jàppale nag jigéen ci ñëw léegi incha allah incha allahu mhm. rabbi kon grand place ñëw ci maire bu Kédougou mu ne dafa mobiliser pour candidat bii di euh, candidat wu benn Bokk Yaakaar du xam ngeen ko amadu Ba mhm. Ousmane Silla mu ne daf ko réserver benn accueil boo xamante ne du XL accueil bi du double XL accueil bi triple XL la tuwaarkal kal macha allah. macha allah pour nga xaw a naataable triple XL. da koy mhm. natt ci man. <laughs> boo ko nattee ci man di nga xaw a am idée. ci triple XL googu. ginnaawu journal bii di euh, Grand Place. ak mhm. ndigalu xalifu Cenaba bi. Euh, ndigalu xalif bi nee na moom nanu votel ki nga xam ne mooy Mahamad Boun Abdallah Dionne beneen yéene bi ci topp ginnaaw Grand Place ñu daal di ñëw ci yoor yor yor yor yor bu Serigne Saliou Gueye mu ne caravane coalition Diomaye président duo bi déglu ma bu baax may leen ma nopp duo bii di Ousmane Sonko ak Joms ñoom ñaar jàpp nañu sud bi dëbb ko ba mu mokk wuy ma eh? ku mën na def ñoom ña fa demoon danoo jàpp sud bi par Ousmane dëggate ñi ñi des jàpp leen xaw nañ leen rey foofu mbooloo ma génn yëf mel ni tuq sa bën ak saañ ba réer laay eh, ah, ah, ah, la ku we eh laajoo Ngoone Saliou. Ngoone Saliou mu ngi si gestion ma nga ca. laa ilaaha illallah. ñàkk nag ñu koy jël léeg euh, hmm. mu ñuy ci ci ci campagne bi. Ngoone Saliou mu nga si gicoor. Mhm. tubaarkaal le reporter bu mag bi. Eh. moom mi nga xam ne bu wàccee sur le tere di reporter di reporter doo ak kenn. tubaarkaal ñëpp mooy xajal place yàlla ko yàlla lafal cat. allahumma amiin ginnaaw yoor-yoor bi ñu wax ne euh, yéen kaay bi dëkk ci Ousmane Sonko ak yi bu ñu demee ci beneen. Euh, yéenekaay yi di l'Express ñu ñëw ci élection présidentielle bu 24 mars bi ñu ngi ciy jublu fii ki fan incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. Hmm. ni mun mu nee naan élection dina am. Hmm. wala élection du am pas force lay am. dañuy élection ci kàttanu yàlla dañuy voté su ko defee bu nu voté dañ dee tànn président. Ah. buñ tànnee suñu président bu bees nag mu doxal kon nag. ci élection présidentielle boobu 24 mars 2024 mu ne mouvement ànd dooleel góor gi njaay bii pare na daal pour jël victoire bi yëkkati ko ku nu ko dee jox ñu ne Amadou Ba ba pour le jéeri nee na ca Rufisque incha allah dana fexe ba jël ndam li daal di ko koy jox ginnaaw l'Express quotidien ñu ñëw ci alerte bi nga xam ne ca benn la jëm mu ne ca président ca 2024 bii Pape Modou Fall mii. Euh, dëgg moo wóor daal moom foofu la parti politique am nekk dëgg moo wóor dafay mobiliser nag ay troupe mu ne euh, les stratégies loolu lépp nag pour daal di euh, jox ndam li Amadou Ba yéen kaay yi lu ngeen xewle lan la ak Amadou Ba suba ak ba guddeeg bëccëg matin midi di soir dee leen xàcc ci digg bi sax du dëgg taxawee nii xaw a taxawee nii am na amul solo alerte yow min nga yi mais ba may tuulee ci kër gu bees gi ma ñëw dootuma la rëdd la dépend naa ñëw ci campagne électorale <laughs> Tamba Kédougou Vélingara Kolda mu ne Amadou Ba xoolal mm-hmm. fait le plein Amadou Ba mii dama leen di wax moytu leen ko Amadou ngi marée humaine de mm-hmm. Amadou ngi marée humaine ca Tamba doyu ko mu marée humaine ca Kédougou doyu ko mu marée humaine ca Vélingara ñu ne dina waay mu tëj ko ak Kolda te fépp marée humaine tuwaarkal la bu demee foofu naan leen ndo mbadda gàlle maa wadi mbaddaay campe mbaddaay kurti kurti mbaddaay karti karti ñooñu naan ko ay ca yow rek la yow la Amadou Ba ñun yow la ñu bëgg yow la ñuy votel marée humaine daal di koy teeru foofee ginnaaw gi ci suuf boo xoolee présidentielle 2024 ca Saint-Louis mu ne Kama dafa promettre ay de pêche yoo xamante ne c'est équilibré et c'est un point important ci programme candidat yi dañ ciy bàyyi xel bu baax ñu bàyyi ou dépasser tout ce qui est politique politicienne mhm. et revenir sur les projets parce que les projets aussi sont importants ginnaaw l'indépendant ñu ñëw ci lii quotidien mu ne bilan à mi-parcours directeur de campagne baa ko wax première semaine fructueuse pour kii di Amadou Ba awaa baax naa yéen dëgg yàlla yi di Amadou Ba Amadou Ba matin midi Amadou Ba yéen a kaay yëpp Amadou Ba nga fay Yoro jat tamit ba nga ne Yoro Dia ministre porte parole xam nga ko. porte parole président président de la mhm. République. Macky euh, président sortant. président <laughs> sortant Macky mu ne le président par magnanimité accorde l'amnistie à nos frères égarés qui ont décidé décidé de réintégrer les jeunes kon danoo égaré woon réer dafa am. ba dafa am ñun jot a retrouver fu mu nekk nii <laughs> ah bu ngeen ne nem nemaara mel ni ko gu nekk ci palaatu te li may wax lépp dañoo dañoo yaru rek ah, quotidien national la moo war a pirluuk yow ah. déglu rek man moom damaa yaru rek ak dégloo rek ah waa yaa ngi laaj ay point yu am solo waaw man kay xam nga yàgg naa laal sax yàgg naa laal de te Pape Ousmane maay def nii kat di calmer ndax à tout moment su ma liyee day xuus ah, Weuz moo gën a doy waar ci plateau bi. Weuz a gën a doy ci plateau bi. te gis nga nabu lu ñuy gën a avancé ci semaine bi ngay gis ñeneen ñu gën a doy waar Weuz. Hmm. ay alburaax. ay Ngoone Saliw ay arab ay Pape Moussa ay Cheikh Omar Talla. Hmm. ma continuer wala. Hmm. ay Ayoba Faye. daf may gënal. laa ilaha illallah. ndeke sans limite nag seen 1 million bi faru leen ko. Ah. ndeke tamit gars yi nelaw da ngeen doon liggéey le réveil journal bu rafet bi moo taamu kay sama waa ji bu ne El Hadji Babou Diagne journaliste exilé aux États-Unis mu ne voter Amadou Ba mooy encourager la répression neen benn. corruption neen ñaar. injustice. loolu ñett. ñett tubarkàlla le français est bon ma ne ko la français là il est bon mu ne voter Amadou Ba c'est encourager la répression la corruption et l'injustice gis-gisam la nag aha gis-gisam la la lam ko teg bari na nag waaye la réveil tamit moom dafa diis na def kii rek mu kupp ci digg bi moom it waaw boo boo defee kii def ci suuf. mais loolooy daj voilà équilibré waaw kay mu ne Sonko mooy Diomaye la réincarnation de Aguel et Diamboye uh-huh. euh, tournée bi nga xamante ne def nañu ko ca Casamance waa fii nag da ngeen def 100 pour cent kii 100 pour cent euh, kii opposition de deleen laal parti au pouvoir tuuti ci xaaj ko ci digg bi rek du dëkk àddina amul solo ginnaaw le réveil ñu ñëw ci Walf Quotidien mu ne implication dans la campagne de leur candidat Macky Sonko ultime duel comprendre ma de. dans la campagne de la candidat Macky Sonko implication campagne de le candidat Macky Sonko ultime duel. Ah, parce que dégg nañ ci ay euh, xibaar. oui allez-y xam nga comme euh, Ousmane Sonko jàpp na ci loxoy Diomaye. waaw président Macky Sall it ubbeeku na. Mhm. pare na également pour accompagner Amadou Ba gis nga sax. libéré na gaañ yi commencé nañ di campagne. du mhm. ñàkk ci semaine bi nga gis président Macky la ànd ak Amadou Ba. am na ñu koy ngun-nguni. day wàcc a terrain waaw. wàcc ci terrain bi mhm. campagne moom it ci semaine yu mujj yi. yi nga wax de Macky. loolu de la ñu ruumal lii lii bu doon bu doon man nag maa ngi xaar ba teg ko gët loolu. gis nga lii bu doon film indo wala film euh, action yooyu da nga naan cooki fin. exactement mooy l'ultime combat. Mhm. fi mu ne nii combat par lay doon. <laughs> Ah. ndax kee dañ doon laam-laame naan ndax dina def troisième wala du ko def kee ci dossier yi tegoon ci kaw mu naan force damay doon candidat léegi nag kee demut kii bokkut malgré loolu yëpp ñu xam ni dualité bi am ci ñoom la mhm. waaye ku ci nekk am nga tey poulain ci présidentielle yu ñu jëm mhm. léegi la ñu tàmbale woon ci austérité yi nag mu ngi mhm. jeex la vingt quatre bii ngay wax mars léegi nag diggante fii ak la vingt quatre ah. ñoom nañ ciy taxawee ànd ak seeni candidat foofu la wax ji ne Mm-hmm. waaye te moom la ñuy xaar comme nag Ousmane moom xaarut. Mm. Euh. génn na ànd ak candidat. Mm. tàmbali wax nga ko sànq dëbb nañ ba mokk sud. waa dëbb nañ mm. diggante bi ñuy dëbb di mokk. kee moom bàyyi na ay nitam. waaye bàyyi candidat am nag. muy wër dem fee. léegi nag ndax moom it dana tàmbali ngir dëbb. Mm-hmm. la ca des loolu moom nañ bàyyi xel sama xol bi. <laughs> dama lay wax waa Ousmane dëbb fu leen neex waaye bu ñuy dëbb nañ bàyyi ah, mais mais mais mais mais mami mais pas man y a de quoi parce que bu ñu gisee tamit Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko gisee depuis bi mu génnee kaso nu mu ànd ak moom ak Diomaye ful bi muy drainer mm-hmm. loolu et puis Macky Sall na Amadou Ba ba waxoon également ni leader yi mm-hmm. nañu dem jàppale ko mm-hmm. bu gisee ni jàppale boobu des na donc ci fi mbir mi fu mu toll nii pour man mu wàcc sur le la même bu téye ci Ba dina kii dina dina am li ngeen ciy séntu noonu yëpp dina ci am. dina am est-ce mu ngi am baromètre de popularité ba léegi. c'est la grande question pour man parce que boo xoolee côté Fouta bi. Mm. c'est vrai que romb na ko tuuti boo xoolee dugg na ay Kolda ak yooyu. secteur boobu Macky moo ko moom mais au moins am na ñoo xam ne bu ñuy bëgg Macky ba léegi nag quoi qu'on puisse dire. ñoom ñoo xam ñu ngi am benn cofeel lu mu ndaw ndaw ci mag yi te loolu noonu bu ñu gisee yi mën na am lu mu dooleel tuuti ci Amadou Ba en fait de façon du ci perte du ci te li gën a wér ci constat mm-hmm. souvent xam nga gars yi dañu dem naan non fii moo gën a nàngam mm-hmm. mais baromètre bi gën a wóor te dara du dañ mm-hmm. élection la tudd mooy tey gis nga yow mami boo duggoon ci langue bi kenn mënul xam looy peser ak loo baax programme ak lu wax ji bëri lu mooy dangaa dem laaj boo laajee bu paree ñu natt la ñu xam nag fan nga toll ci réew mi comme nag élection mooy baromètre je ne pas en de Euh, mmh. comparer législative yi ñu génn mm-hmm. ak présidentielle mmh. mais soo jëlee ci législative non et puis beneen enjeu mm-hmm. su ma taxee ci législative yi nga xamante ne moom moo mujj mm-hmm. nga boole ko même ba ci local bi da nga gis ba tey tembo bi ci diggante exactement mmh. maintenant nag liy def différence bi mooy ci diggante bi comme ni ko waxee présidentielle ci diggante bi li fiy xew perception bi sénégalais yi am surtout ñi nga xamante ne ñoom la ñu ay indécis nga xam neewuñu fii newuñu fee ñoom acteurs yi la ñu observé di leen déglu ku dal seen xel ba fii te ñooñu mun nañoo dem sax ba ca veillu élection yi wala sax ba ci bureau de vote fekk na ñoom démb ak barki démb xalaatoon na ni diw la dem ba ci seen bureau de vote soppi tànn keneen mën naa ne te ñooñu boo jëlee fichier électoral bi on est à million millions mm. soo jëlee baromètre ci élection yu gën daanaka trois millions et quelques ñoom ñoo départagé mm-hmm. euh, ñi doon sàkk ñi doon ñi nga xam te ne ñoom ñoo doon